Bon, ces terrains, on les a reçus par la mairie, avec les documents en appui. On en avait un fichier relatif au paiement des frais de bornage fixé par la délibération numéro 2 du 14 avril 2006 par M. Mafal. Délibération numéro 13, cédée en date du 17 janvier 2018 portant l'affectation de TNI. Et le mercredi 17 janvier, qui a été approuvé par le conseil municipal de Djamniadio. Il y en avait les vues, ainsi de suite. Il y a les documents qui sont là qui les montrent. Donc, à notre surprise, quand on a vu les agents qui étaient venus détruire, par le biais de la à un monsieur qui s'appelle Mamadba, C'est lui le directeur de la C'est la qui a commandité. On les a clairement dit que les sites, il appartient à d'autrui. C'est la population de Djamniadio. Les terres, ils étaient lotis au biais de la, de, la mairie de Djamniadio. Il y avait les gens qui habitent ici dans ce site il y a des constructions, il y a tout qui est là. Donc euh, toutes ces populations, on peut pas les, toute cette population, on peut pas les mettre dehors à cause d'une personne qui vient pour intimider la population de Diamniadio. tey jii kooku xamuñu fu mu jóge xamuñu lan la bëgg xamuñu lan la ñuy indil mu ngi intimider di intimider ba tey jii am na barrage boo xamante ne mu ngi fii si suñu gannaaw mu ngi exister depuis en 1938 ba tay moom tey mu ngi jog pour suur barrage boobu yemul yemul ci loolu si loo xamante ne lotissement administratif la. boo xamante ne dañ koo dañ koo def approuvé que par le sous-préfet de de Mbambilor monsieur Marcel Thiaw loolu noonu dañ ko approuvé muy ay terrain yoo xamante ne dafa nekk fii moom mu continuer si harcèlement yooyu si loo xamante ne tegu ma tegu ko si benn argument boo xamante ne ñi nii dañoo xam ne si lii lañu nekk. quant barage bi am na benn danger boo xamante ne da see nekk bu kenn seetaanee ba mu suul ko. boo ëllëgee ñoom dinañ sol seen i costume ñëw di jaale ay nit di leen di leen dédommager loo xamante ne ni ñoom dañ ko seetaan keroog bi fi su préfet bi fi préfet ñëwee la wax la wax ki mu fekkoon ne ko monsieur le président moom moo ko jox Momar Ba pour mu jox ko ay allemand ñun nag ay sénégalais lañ du ñuy allemand ñu ay gambien nous sommes des sénégalais et nous resterons des sénégalais. beneen bi mooy moom dafay continuer ne yor na ab baay te fii dafa am délibération boo xamante ne ça existe depuis 2006 te délibération beneen baay mënul tegawaat si kawam. moom leer na ko ne kon mënul am fii dara tax na dafay jaar si suuf di xool ay nit pour ñoom ñu jaay ko seen li ñu jot a yor ku nekk si dëgg nag doo jaar si suuf di jënd pour jéem a keneen yor li mu yor mu jaay nga nga jaay ko ko